حمدا لمنزل لنا وداي ومنزل الشفاء والدواء من امر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مسس مدد يبرأ بلا amiin منا وهمهما لنا وتجاوز عنا bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa qadimihi wa mawala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu président Serigne Cheikh ñi ngi lay nuyu lu bari lool di nuyu madame la directrice di nuyu chef de cour di nuyu itam mboolem personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci mag bu Mbàkke di nuyu itam détenu yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi di am mbégte lool ci teewaat fi bis ni ki tey jii ci turu daayiratu Muxaddamatul ma ci délégation boo xam ne nii la composé woo ñi nga ànd ak sëriñ Abdul Ahad Bousso mi nga xam ne mooy secrétaire général bu daayira bi ak Abdul Ahad mii di wax ak topp ci moom nekk secrétaire général numéro de ànd itam ak sëriñ Abdul Ahad Bousso mi nga xam ne moo jiite commission sociale bi ak relation extérieure sëriñ Abdul Ahad Maasami ànd ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso mi nga xam ne moo jiite commission culture ànd ak sëriñ fallu Mbacke mi nga xam ne moo jiite lépp luy organisation ci biir wàllu liggéey bi ànd it ak mu ànd it ak ay adjoint am sëriñ Modou Mbacke sëriñ Cheikh Abdou Bousso ñu ànd itam ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu communication ci wàllu Muxaddamatul Xidma di sëriñ Abdoul Khadir buso ak sëriñ Cheikh Diop ñi nga xam ne moo nekk ci caméra bi ànd itam ak ci waa organisation sëriñ Fallou Mbacke moom itam. nekk euh, président sous commission ñëw fi tey nag ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma tànki nag li ko waral mooy euh, liggéey bu am solo bi nga xam ne daayiratu Muxaddamatul Xidma mi ngi koy taxawee ci jumaay Tuubaa ak ci armée ak lépp loo xam ne moo aju ci penc bi sëriñ bi dénk leen ko loola ñëpp xam nañ ne daf caa bokk bu weer koor jotee ñuy amal ay ndogu ci jumaa ji ndogu yooyu nekk nekk barabu yaatu boo xam ne mbooloo mu bari dañ fay daje. Euh, boo bis bu set lu mu néew néew danañ am ñeenti junni jàpp juróomi junni nit yoo xam ne dañ fay doge loolee nag ña koy def si di njabootug lislaam di taalu Sëriñ Tuubaa yi nekk ci dëkk bi rek ñooñu nag ñu gis ci ne xëy na ñàkku ci ñoo xam ne nattu dab na leen ba ñu ñëw ci barab bi te ñu bokk nag ci mbir mi ñu war leen di leen fàttaliku war leen a xamal ne itam yëg nañu ne ci société bi ngeen bokk waaye yëg nañ ne itam ndog moo leen gaar ngeen ñu teye leen ci barab waaye da ngeen a war a barab boobee bu ngeen ci jógee da ngeen a war a ci noonu ñu bokkaat li ñu amoon lépp loolu nag bokk na ci li koy won mooy la ngay nekk di ca yëngu waxtu wu nekk nga di leen ca bàyyi xel di leen ca fàttaliku te di leen ca boole loolu moo tax ñu gëm ni ñoom xëy na su yàlla dogaloon ñu nekk ci biti mën naa am danañu ñëw doge si fa donte benn bis la ci ci ci ci ci ci koor gi waaye ñàkk faa nekk nag taxul seen bokk ci dañ kon buñ fa nekkut te mënuñoo ñëw ñun am nañu euh, àq ci jël lañ leen waroon doxe foofa andil leen ko fii ñoom itam terale leen ko ci barab bi nga xam ne fi la ñu nekk kilifa gi loolu moo doonoon euh, yitte ji ak it nag euh, naabaat leen itam nag ñu xam ne lii kaso du du du du nattu la boo xam ne nii day dab doomu aadama tey jëmbul kenn koy dund ci kaw suuf fii ku rek. ku xëy ku ne mën na fee fanaan si ndax la ko fiy andi doonul ne yow yaay dem fàggu ji ko waaye mën naa doon lu suñu borom dogal ci sa dund mu war a am te bu am waree am faaw day am kon nag ñi fi nekk ñi ci biti war nañ leen di bàyyi xel ndax ku nekk ci biti rek sa place am na fii waaye ku nekk fii sa place am na ci biti te da ngay génnaat fekk fa ñee ci biti loolu nag relation bi war a dox seen diggante ci ak fàttalikoonte ci ak jàppalante ci ak yëgante ak euh, yanu waale yanu yanu la leen natt bi nga xam ne moo daal seen kaw ngir moo yef ci ñoom loolu jàpp naa ne lu am solo lay doon lu baax lay doon président loolu moo tax ñu ñëw fi tey di leen dénk rek ne nañ bàyyi xel ne képp ku ba sa am lu baax ci àdduna ne bu dee fukk juróom jaar nañ ci lu mel nii bu dee fukk juróom jaar nañ ci lu mel nii wala sax fukk yëpp jaar nañ ci lu mel nii muy ci diine muy ci àdduna muy ci lu mën a doon yàlla moo binde noonu àdduna kuy sàkk lu baax ku nekk faaw mu am ay nattu yu lay yu lay yu lay yu lay dab natt yooyu nag la soo ko muñee rek yàlla defal la ci xewal yu kawe kawe waaye bu ca saalit ñëwee rek loo doon wut lu nekk da koy ñàkk moo tax kon ñu ngi leen dénk ñu muñ te ànd ak dal te xam ne lii du looy sax as ndiggante rek lay doon ci ak dund diggante soosu nag rek waaye ku ko yàlla natoo na ko muñ te bañ cee ñaaw te xam ne day jeex léegi te àdduna borom xam-xam ba dafa waxoon ne àdduna jëpp lu ñuy waxtaane la kon nag na nga fexe bu bu ëllëgee bu ñu lay waxtaane waxtaan wa nekk waxtaan wu rafet loolu la Ibnu Duraydin waxoon kon nag kenn ku nekk war na bàyyi xel wax wax jooju te di ko dund ak foo mën a nekk ak lu la mën a dab ci àdduna te xam ne dara saxut lépp day jeex te lu jeex lu nekk rek na la bàyyeeg la gën loolu mooy li am solo kon yàlla na leen yàlla waaye falal natt bi te génne leen ci jàmm génne leen ci ci jàmm ñett rek ñoo fi nekk ki nga xam ne dafa joom ñëw fi ak ki nga xam ne yàllaa ko ko nattoo xay na defut lu tax mu ñëw fi waaye nattob yàlla la te doomu adama nu mat ak ki nga xam ne nag dafa yàlla daf ko mu dëng ñett ñooñu rek ñoo fi ñëw ki nga xam ne dafa joom yàlla na ko yàlla dëfal musal ko sàmm ko ba mu ba mu bañ a dellu ci te loolu ki nga xam ne dafa dëng yàlla ko suñu borom jubbantee ci barab bi ndax barab bi defe naa barabu correction correction bokk na ci tur bi Euh, kon yaakaar naa jubbanti googu itam yàlla na suñu yàlla na leen suñu borom defal ndam ba ko fi ñëw jubbanti ko ki nga xam ne itam dafa nattu moo ko fi indi waaye la ko fi indi moom ci boppam sax xamu ko ñi ko fi indi itam xamuñ ko loolu day am waaye ñooñu itam yàlla na leen yàlla dimbale waaye ñu bàyyi xel ne loolu dafa bokkoon ci seenu dund te bokk ci liggéey bi leen di muy mottali seen liggéey seen diggante seen borom kenn ku ne ñoom ku ci ku fi génn bañ fay del seeti ci barkab Serigne Touba yéen ñi nga xam ne itam yéen leen di toppatoo di leen saytu yàlla leen suñu borom defal jàmm dafa leen sutura defal leen ak déggoo ak ñi ngeen di sàmm nag ba jàmm rek di xew ci barke Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa xam naa liñ fi liñ fi indi bokk na ci mboolem yi nga xam ne rek moom la ñuy doge nañ fi dara ci euh, ndogu mooy mooy cin nga xam ne moom lañ togg way euh, euh, ginaar la ak yimu mu àndal am na termos boo xam ne bisaab la am na boo xam ne kafe la am boo xam ne meew la am boo xam ne jinjeer la lalee itam ñaar lu na ñaar téeméeri mburu lalee itam ñaari euh, bool yi mat leen la am na ndox euh, ba euh, beurre ndoxu ndoxu butee am na ndoxu sase am na itam beurre ak sokola ak ngir ak ak tàndarma ngir ñu war koo doge yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ jotoon na fàggu ngir indi ko fi tey ñuy jégalu nag ci xaw a guddal gi di sant bu baax président ndax moom itam biñ ko ko waxee rek dafa jóg. bàyyi léppam ànd ak ñun ñëw teew ci jataay bi te loolu itam xam nañ cër bi ko yàlla jox xam nañ itam dara darajaam waaye moom ci boppam moo mooy taalibe taalibe Sëriñ Tuubaa taalibe Sëriñ Tuubaa woyof lay baaxoo woyof googu mu am nag moo tax mu jóg bàyyi lépp ànd ak ñun ñëw ba fii ndax mën naa seet ku ko gën a neex rek ci ci service ba ka gën mu boole ñu ñoom te ko nit moom ñëw fii day doy sëkk ndax ñun bañ koy woo sax yoon wuñ jaar ba ñëw rek lañ ko doon lañ ko doon laaj waaye cawarteem ak yitteem ak bëggam liggéey bi ak bëggam sëriñ Touba ak euh, sagub Serigne Touba ñor ko lool loolu moo tax mu jóg ànd ak ñun donte nag dafa bokk ci noonu sëriñ bi boole nu euh, mu mu mu mu mu féete ñu fu bari euh, ñu nit ñuy ay collaborateur ci liggéey bi loolu moo tax biñ ko wooyee dafa bàyyi léppam rek daal di jëw ñu ngi koy sant bu baax daal di woo soxna si nga xam ne itam mooy adjoint directeur bi moom it mu fekkoon na tey doon toon bi su liggéeyam wàccoon na waaye bi ko président wooyee dafa bàyyi léppam moom itam ñëw yooyu nag ngeen yëg ne yëg nañ ko bu baax a baax a baax euh, ndax asgor moom loo ko jox ci teranga rek ci sa jëmm yow mën nga ko xeeb waaye moom da ko war a naw naw nañ nag taxawaay yooyu bu baax a baax ñu ngi leen sant baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah teer bi euh, sama wax nag du gudd parce que si biir bureau bi président wax na lépp euh, waa prison bi dañu nekk ñoo xam ne ay dañu bokk ci njabootu Serigne Touba parce que ñu ngi ci localité bi léegi bu ñu gisee daayira bu mel ni ñëw indi lii nii ni mel na ni yéen fàttewoo leen leen ci seeni dund parce que prison population en miniature la ñëpp dañ fi nekk seeni doom seeni rakk seeni mag ak seeni jarbaat donc bu ngeen leen xalaatee ci lu mel nii dañ leen di remercier bu baax a baax a baax parce que xam nañ ne yéen am ngeen idée réinsertion bi ñuy def par rapport ak ñi nekk ci biir te réinsertion weesuwul lu dul di xamal nit ki à tout moment que war na génn ci société bi te su génnee day dellu si njabootam boobu nga xam ne mooy ñii nii nii doon ñëw indi xiwal yii nii di leen ñaanal yàlla fulal leen lii nii ngeen def tey parce que dañu ne weeru koor lépp loo def yàlla def la koy multiplier ci tuyaaba di ñaanal waa daayira bi yëpp mënuma leen lim nag macha allah yàlla fulal leen lii ngeen indi tey ba ngeen koy def ay ati ati at vraiment kontaan nañ di remercier président par rapport ak collaboration bi parce que collaboration bi du lii rek de day am ay situation yoo xam ne dañ dañ ci war a taxaw mais moom da ciy jóg def ci lu mu ci war a def ba fii nii du ñu yëg yenn difficulté yi par rapport ak nekkin bi fii nii voilà loolu moo taxoon ma ne xaaral ma sànni ci tuuti kàddu rek di leen remercier encore une fois di jégalu nag wax neexul <laughs> vraiment maa ngi jox euh, kàddu sama chef de cour bu ci amee lu mu ci yokk aussi vraiment macha allah merci beaucoup. wa rahmatullah euh, daayira bi ñu ngi leen nuyu bu baax euh, Muxaddamatul Xidma donc presque li ñu doon war a wax. président jotoon na ko wax ak yéen ci biir parce que si suñ mission sécurité am na beneen bu si yokk mu ñuy wax préparation à la réinsertion sociale te ni ngeen taxawee nii maanaam nekk na lu ñuy jàppale par rapport ak suñu mission boobu noonu nga xam ne mooy waajal ñi nga xam ni dénk nañu leen pour bu ñu jénnee mën a nekkaati si société bi sans pour autant ñu récidiver ñu wala ñu duggaat si liñ liñ jotoon def donc euh, le fekk ngeen ñëw fàttaliku leen si lu toll ni si weer wu tell bi weer wu sell bii di eh, weeru koor ngeen ñëw indi leen ay ndogu je crois bien que ni dina tax ñoom ñu xam ni ñi si biti fàttewuñu leen te loolu moo nekk li nga xam ne à chaque fois moom la ñuy ñaan ba ñi nga xam ne ñi si biti jàppale ñu si suñu liggéey si li nga xam ne mooy wàllu réinsertion bi di di di di ñu si jàppale di ñu si taxaw ba liggéey bi mën a yemb ñu ngi góor góorlu si lu ñu mën parce que euh, bu ñu xoolee si biir am na ay activité comme ni leen ko président junjee sànq parce que ajuma bu jot dinañ julee ajuma si biir dina dinañ wàcce kaamil si biir dimanche kuréel am na fi alxamis la ñuy def si kër si donc màggal yi comme ni leen ko président junjee léegi màggal yi fi am yëpp dañuy màggal si biir donc yooyu yëpp di ay xeetu taxaw taxawaay yu ñuy taxaw pour bañ séparation bi di am trop par rapport ak li ñu dund si biti ak li li li li li am si biir donc euh, bu ngeen dikkee taxawee nii. day doon ak ndimbal gu nga xam ne nii peut-être mbégte mi mën na am commencement mais du ñu xam fu ñu ko fu ñu ko donc euh, pour bañ a guddal duñ def lu en tout cas euh, remercier leen waat encore di leen santaat di leen gërëm di leen di ñaan ñi ngeen ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi si dëkk bi te mën a taxawee nii donc euh, ñu taxawee ko te xam ni ñu nekk si biir si seen njaboot la ñu bokk si njaboot gi la ñu bokk si kër gi la ñu bokk donc ñu taxawu leen lu ñu leen mën a taxawoo donc jërë ngeen jëf waa daayira bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh euh, Cheikh Niane président du tribunal d'instance de mbake waaye sama teewaay tey nag maa ngi teew en tant que JAP juge de l'application des peines euh, di nuyu d'abord euh, ki ñu dalal muy madame la directrice ak chef de cour. parce que ñu ngi ci maison d'arrêt bu Mbacké euh, di ci teg également suñu gan yu tedd yi euh, di waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nekk Touba di liggéeyal sëñ Touba ci jumaa ji ak lépp lu aju ci jumaa ji ak armée li comme ni ko ñi ma ñi ma jiitu waxee muy daayira bu am solo bu rëy taxawaay ci yoonu murit donc euh, tey ñu ñëw fii doon seet si ñi fi nekk maanaam détenu yi ñu téye fii Euh, di leen fàttaliku ci koor gi euh, ni ko ñoom ñëpp waxee rek initiative bu rëy la boo xam ne nii rëy na rafetlu nañ ko te suñuy kilifa ci wàllu administration ndax maison d'arrêt mi ngi bokk ci ministère de la justice donc ñoom ñëpp rafetlu nañ lii te it bëgg nañ initiative yu mel nii sëñ Abdoulahat bu sa wax na ko léegi. Euh, bu ñun bu ñu sañoon ñëpp roy ci ñoom donc lii buñ ko defee tayit ñoom am nañ yéene continuer ak ñun ci liggéey bu mel nii waaye dañuy woowaat nag bon volante yëpp képp koo xam daal lu baax moo la ñor dimbali moo la ñor social moo la ñor donc ñun tàllal nañ la loxo ngir ñu mën a gën a jàppale ñi fi nekk man lu ci ëpp ñu fi nekk ci samay loxo la ñuy jaar ci wàllu tribunal waaye au delà de loolu ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ay mbokk lañ ay wax nañ ko léegi ay rakk ki jarbaat ki lépp fi nekk donc man également moo tax suñ ma invité ci lu mel nii ma ci sawar jiitu ci wax leen wan leen ne it ne kenn fàttewu leen te it kenn beddiwu leen juumte nag day am rëcc rëcc day am ñu tëral ci société bi ay règles yoo xam ne nii ndax société des koy organiser règles yooyu ñu tëral nag ku jàll règles yi nga jéggi ko wala nga jalgati ko dañ laa war a indiwaat ba wan la ne lii mooy règle yi rek loolu rek mooy ab atte loolu rek mooy société kon nag ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañoo rëcc règle yooyu ba wàcc ko ah kon ñoom génnuñu société ci lañu nekk daa am lu ñu wàcc rek moo tax nag ñoom ñii am xel moomu ak bàyyi xel googu xam ne li ñu wàcc taxul ñu boddi leen ci société bi ñu boole leen ci ñoom fàttaliku leen fañ nekk ndax lii mënut a weesu fàttaliku ndax fañ nekk ñoom ñoo toog ci seen xel seen xalaat ak seen bëgg liggéey liggéeyal sëñ Tuubaa ak bëgg a liggéeyal lislaam ak bëgg a sax jaamu yàlla ci doomu aadama rek de façon générale euh, amul xaaj amul seel ndax fii directrice wax na ko façon bépp ngi fi bépp diine ngi fi bépp waaso ngi fi bépp jëmm ngi fi bépp façon ngi nit boo foog rek mi ngi ci biir kon ñoom seen liggéey bi jëmmi doomu aadama lañu fonk sëñ Tuubaa jàngal leen ko lislaam jàngal leen ko ñu di ko dund fonk ko tax ñu def lii kon ñun ñi nga xam ne ni ñooy kilifa yi ñu fi fekk ñu ngi rafetlu liggéey bu baax di ko di leen sant a ah, di leen gën a ubbi seen suñu loxo ñu gën a collaborer ci liggéey bi lu ñu jàpp ne rek njaboot gii nekk fii ci meson d'arrêt bi ñoom am nañ ci wàll te jàpp nañ ne loola dana baax ci ñi fi nekk man ubbil naa leen sama loxo directrice ci cadre directeur am di kilifa am ak suñu cadre kilifa yëpp ubbil nañ leen seen loxo waxtaane ko sëñ bi wax na ko léegi àddina lépp la ñuy waxtaane waxtaanee ko nu mu gën a baaxee rek ñu xam ne njaboot gi genn njaboot gi la ñu ànd ci defandoo di yëkkandoo yëkkatindoo di tegandoo ba niñ bëgg njaboot gi mel mu mel bi may mujjee rek mooy wax naa ko léegi liggéey bi dafa rëy ci ñun ndax waxuma waa ci wàllu xéewal ndax loolu ci ci doomu aadama lay dem ci ci physique am ci yaramam waaye sur le plan psychologique mental ñi caabi féete ginnaaw dafa am fu ñuy gisee àddina parfois kon bu ñenn nekkee ci biti fàttaliku leen ñëw fekk si leen indi leen xéewal waxtaan ak ñoom dana leen dellusiwaat ba bu amoon ñu war a mer war a jaaxle war a jànnaxe ba fipp mën ci topp loolu lépp ngeen teggil ñu ko ci seen jëf kon administration sénégalaise ci boppam moo leen amel ndukkal di leen sant waaye nag dangeen ngeen xam ne ci Sénégal ngeen bokk kenn ëpp fi cër moo tax xaaru leen kenn wax leen ko kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom ci darajay weer wu tedd ci barkeb sëñ Tuubaa mi nga xam ne nii moo tax ngeen di liggéey te liggéey bi jaar ci moom mu yokk leen bu baax ba at yu bari ñu di ko def mu gën a yaatu tey nag may lancé waat appel di réitérer seen propos ci côté boobu mooy ku gis lii tey wala nga dégg ko yoon wu ñu xàll la tëjaluñ ko kenn mën naa yaatu ñëpp jaar ci xëy na ñoom la yàlla dogal ñuy pionniers yi maanaam tàmbali ko tey defe ko nii ndax benn yi lim nañ ko léegi tubaarkàlla lépp am na ci kon nag képp ku gis lii wala nga dégg ko ñoo ñun ñu ngi ñaan nga roy ci ñoom ndax lu baax des koy roy kon ñu ngi ñaan bon bonne volonté yi ak ñi yàlla may dara a ah, te bëgg lu baax bëgg a jaamu yàlla ci mbindeef yi ñu xool jëf ji mu doon yoon wu ñu xàll ñu ñun ñëpp ñu jaar ci euh, ndax yàlla defal ñu ngërëm ak njëgalam maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh